baa ngi noonu Mbaye Djiné nga xaar mu dugg turam Mbaye Djiné nga junior mi ngi Mbaye Djiné Mbaye Babacar mi ngi mbooloo xale bi nee na man day mbàkk ko ma dafa maa jaral diggu géew ga muure ba dem na kañ mag dem na jaan lu waay doon jaay léegi mu lambam mel na mën a yoo yàqam ji mercredi 26 mai 2021 19h49 daf daan bay tin soo kat rek daf daan jàppante ngeen la bay tin daf daan Dab Daan am na ngemb Mbaye Tine Dab Daan Mbaye Tine dafa woon ne ngeen ndeysaan combat ga teel am sonn bu Mbaye Babacar Mbaye Tine Dab Daan Mbaye Tine Dab Daan combat bu war a mën a gaaw la ndax arbitre dafa soufflé rek ñoom ñaar ñu daw jàppante mel ni dañoo yàqante wante ba pare dañoo ñeme wante Mbaye Babacar. waaw dañoo ñeme wante Mbaye Babacar ndax Mbaye Tine dafa bëgg a war a boppam ñu dem daal ne ko ci man ngay yéegee du ma garab xale ci man la ñuy feeñee woo la soxla wala xam nga laa soxla. journée ci daali ñu nii mbay tin dab daan mbay tin jàpp ci dembali mbay tin dab daan mbay tin am na ñaari loxo ci gañoo bàyyi na benn ba léegi benn la dese daal di koy nengeñ dab daan am na benn loxo li gaño mbay Babacar dab daan mbay tin grand combat ba la bu Ameth Assoul Diatta dab dab daan bay dit faqat na ko waaye demul dab daan bay dit looy def nii looy def nii looy def nii looy def nii dab daan bay dit ma koy xëcc ma koy xëcc moom faqat di dab daan Mbaye Tine dab daan Mbaye Tine dab daan Mbaye Tine dab daan Mbaye Tine di nga bëgg a fi mu ko nekk koo ëppul doole ba ca la tee yem ba la tee kon daan bay dit